是。 fidèles téléspectateurs de la DTV c'est une émission question de l'heure jot 5, sënk mu delluwaat rek di leen jaajëfal ci topp bi ngeen di topp programme chaîne chaîne de télévision rawatina c'est une émission bi di question de l'heure une émission nag tey ji dañ ko nar a rek ci ñetti ponk wala sax ci ñaari ponk ndax xam ngeen ni li nu dialogue politique di waxtaan wi nga xam ne nag dafa waroon a am ci diggante wala sax day am ci diggante nguur gi ak kujje wala sax ci genn ci fa mu mujjee eh, ñëpp xam nañ ko dinañ ko waxtaane nak ci émission bi ndax am ñetti ponk yo xamanteni ñom ñoom ñoo waral que lépp lu jëm ci travaux yi nga xamanteni nak nag nañu duré sax lu tollu ci fukki fan ñu mujj ko ajandi loolu lépp dinañ ko waxtaane wayé tamit eh, lu ay di njàmbar wala sax comme question de l'heure lañ wax rek lépp lu jëm ci actualité dañ koy waxtaane tay ji ñu nar jëm ci bolé ci waxtaan wi ñeent fukki milliards wala sax 200 milliards yi nga xamanteni ni l'envoyé l'envoyé spécial de son excellence le président Macky Sall di soxna Aminata Touré mi fi nekkoon ministre de la justice garde des sceaux ministre de la justice ba pare nekkoon fi premier ministre du Sénégal ñu na ko tudd lu jëm ci naan ci li ngi des biens euh, malaki ou wala traque des biens euh, supposés malaki acquis loolu lépp danañ ko waxtaane tey jii waaye donc bëggoon rek euh, avec la complicité de mam Cheikh ñu dem seetaan élément bi nga xamante nii nag Abdoulaye Ndiaye jot nañu ko defal lu jëm ci wàllu coowal 200 milliards yooyu la ak waa coalition benn bokk yaakaar bi ñu doon taxawal initiative 2035 lan lañ ci tontu waa ko jégi du côté de la régie ñu teewlee élément bi dil soit ci plateau bi kuréel gu yees bër bu waxtaanukaay dëgmale ko nak atum 2035 di nak ay leader politique yu fassiyene yéene ku kujje ndax dinañ xex wala duñ xex dañuy xex parce que ñi ñi xëccol duñ ñu may dara paré nañu wax lu dul dëgg paré nañu sos paré nañu nax nit ñi te ñoom jëfuñu fi lu tax ñu war leen a wóolu li may wax ni ci lu leer laa ko teg ñan ñooy wax Idrissa Seck nee na amuñu kàddu mu bëccëg ndara kàmm jant bi ci digg bi mu ni sénégalais yi bu ma delloo ci Ablaye Wade double abomination mooy war naa ci diine war naa ci ngor koo xam ni jàngoo fenn parce que bu noo teg say wax rek ci jàng naa borom xam-xam laa teg ko ci mas naa nekk université Sciences Po bu Paris kan nga fa nekkaloon def naa Sciences Po ba pare taxaw di xas nit ñi en fait loolu lañu am. gën a xóotal sax bi lépp initiative di rek xeebantal kàddu yi soxe ko ci Barthélémy Dias ñeel nag seen plan bi ñu bëgg a doxal ci wàllum politique. dëkkam dossier yi mu teg loxoom protégé wuñ kenn Barthélémy li ñuy menacé ñu ngi koy xaar. suñu avenir ah man de bu ñu gisee fausse facture xam naa ni Macky Sall du xaar beneen régime man lay njëkk a dóor bu ñu gisee fausse facture ci man nañ ko génn

des chiffres qui seront démentis le lendemain. Même dans l'adversité, il faut se respecter. Nous combattons pour les mêmes causes. Aujourd'hui, autant que jamais, nous serons solidaires. Il s'agit gën a booloo ànd. Il bii juddu fas yéene atum 2035 ay wërngal ci biir réew mi yépp ñu nar ko amal lépp ci fësal liggéeyu njiitu réew président de la république. Abdoulaye Ndiaye ñu lay euh, jaajëfal ñu am mbégte di dalal ci plateau bi Pape Malick Ndour le président du conseil départemental bu Nguer Guinguinéo ba paré bokku ci partout réwmi son excellence le président Macky Sall alliance pour la république Pape Malick ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mansour di nuyu euh, suñu téléspectatrices yi nga xam ñoo ñuy déglu di nuyu aussi sama naataango politique yi nga xam ñam la bokal débat bi. Mhm. di am yaakaar ne njëriñ dina fi jógee. ba ñëpp mhm. gisi seen bopp ci débat bi. Mhm. le décor est bien campé suñu reporter bi nga xam mom moom la ñu yebaloon fofu Dinga nga wax ji fo fa manam ki nga xamanteni tay tey ci jamono ji mom moy ministre du tourisme japp na ni ci genn wàll kàddu yi nga xamanteni euh, ki fi nekkoon euh, ministre de la justice garde des wax na ko lu jëm ci walu track des biens malaki mal acquis ou bien des biens supposés mal acquis deux cent milliards lu tegu la. reddition des comptes publics. c'est-à-dire mhm. que suñ denké da nga wara ñëw ne liñ ma la démé loolu mo waral li nga xamné mom lañu woyé track des biens mal acquis. Mhm. loolu lu bax la. yàlla moo ko njëkk santaane parce que suñu nee su ñu dee ñun ñëpp dañuy dem yàlla dugal ñi safara dugal ñi àjjana ku nekk dañ lay def sa bàkkaar ak li nga defoon ak jumte ñi fi nee woon am na lu ñu fi def Sénégal njaay ñëpp doon wax ne ñii nekkewuñ ci lu dul lekk alalu jàmbur bi loolu nekk lu bees ñëpp ko doon wax ba ñoom ñu jóge fi président mac Sall traduire loolu en politique mu nekk CREI bi nga xam ne dañ ko fi créé woon bu ñu ko fi créé euh, Mimi Touré moo nekkoon ministre de la justice donc mm-hmm. Sénégal lu coow li di rëy di rëy di rëy di rëy di rëy di rëy moom kum ci waxul lenn mënoo ko ci xam. Mhm. mu ñëw wax ñu deux cent milliards. yemul foofu moo na fa yem fa yemoon ay la yéwén man su may wax damay wax sama akulaay taala dama ah moom moo ko wax am nañu njott ne moom moo am information mais mënuma ci wax mais bu mu ko waxee. Mhm. yemul foofu dafa expliqué waat encore une fois. loolu ñu ne deux cent milliards la fan la jógee. Mhm. mu wax ci nag lu leer nañ ñëpp xam nañ ne AHS. jàmburu ko moomoon léegi tey état bi ko moom te boole na ko si mu nekk lu leer nañ ñëpp gis ko. jàmbur comme kenn. Karim Wade. Mhm. parce que nag yaakaar na su fekkoon keneen moo ko moom ku dul Karim su mhm. fekkoon yow yaa ko moomoon wala keneen keneen. Mhm. tey dañ dégg leneen lu loolu waaye nangu nañ ko état koy jëfandikoo mu ngi nekk ci budget état bi état am na fa nommé na fa directeur nommé na fa administrateur provisoire ba tey jii boole nañ ko ci AIBD fi tigga toj fi. donc am nañ jot ne Mimi Kab beneen bi mooy. joxe na beneen exemple bu concret boo xam ne mun naa ko citer. mu nekk Dubai Port World bu muy ñëw dafa waroon fay ticket d'entrée maanaam su la joxee marché bu toll nii port nga war ko jëfandikoo war ko expliquer da nga war a joxe maanaam payoor paas pour mun a dugg ñu gisoon ne bu Dubai Port World doon ñëw joxul woon paas te Sénégalais yëpp a ngi doon wax ñun ñii ñu ngi doon wax Sénégalais ñeneen ñi nekk si mbedd yi ñu doon wax ne Dubai Port World bii kat ak naar yi. jëfandikoo mag Karim am na lu ci louche. Mhm. bu ñu ñëwee xupp leen ñu ne ah ñun fay ñëwoon woon Dubai pour wët nit ñi njott ne loolu moo waroon nekk participation bu Karim ci loolu état bi nangu ko ñu dugal ko ci loi de finance. Mhm. et cetera et cetera cetera joxe de exemple leer na li mu wax amul lenn loo xam ne mën nañ ko ci teggi parce que ay chiffres yu leer la léegi nag débat bu ñu soulever. Mhm. mooy débat bi mooy ana xaalis bi. waaw d'accord loolu moo andi peut-être war bi loolu nag bëgg ci leeral. waaw comme que peut-être su ma comprendre su ma comprendre débat bi moom. Mm-hmm. mooy nañ ci ñëwaat.

nek na lo xamanteni ni moom s'écrit au fronton même de institution li nga xamanteni ni moy bu Sénégal euh, mu japp ci genn wàll keni li nga xamanteni ni soxna Aminata Touré wax na ko parce que amna ben benn informa information jombul ni amna information yo xamanteni ni en tant que sénégalais lambda ñun amuñu ko en tant que ancien garde des sceaux ministre de la justice 200 milliards recouvrés dans la traque des biens mal acquis waaw euh, merci beaucoup euh, wax bi dama ci sawar hmm. ndax Mimi Touré euh, dafa lajj dafa lajj ci liñ ko dénk ndax reddition des comptes ñëpp ñëpp ñëpp ci d'accord mhm. moo tax ñun tegoon nañ fi kuréel yu bëre yoo xamante ni ci nguuru Ablaye Wade lañ ko fi teg ba ci euh, OFNAC bi ñuy wax mooy cour bi fi amoon contre de lutte contre la concussion et la corruption mhm. lenn lañ ci changé muy lu baax sax d'ailleurs mooy le citoyen peut saisir la cour c'est la seule différence euh, donc reddition des comptes dafa di loo xamante ni principe bu ñëpp d'accord

Bibo Bourgi ak ay partenaires am créé AHS la preuve AHS yeneen dëkk yi ñu ngi dox bu Jordanie bu bu yeneen dëkk euh, te tey ji AHS boobu muy wax moom euh, Antoine Diom, bi nekkoon procureur spécial créé CREI mhm. nekk agent judiciaire de l'État moo def mhm. conférence de presse euh, fële ca Paris ca bureau madame Balme muy conseillère communication Macky à l'international mu ne AHS recouvrer nañ euh, pour aéro ABS AHS environ 19 millions d'euros ma monnaie AHS environ 8 milliards mhm. mais nous avons muy 50 milliards de dollars. muy ben. Tout na le World DP World bi nous ñëw ñun ñëpp xam port tey boo la ñuy kaas DP fi jëlee multinational nous avons ne la dañ ko en bourse boo xam nga lu ñu côté omb su boo bokkee ci lu lëndëm rek ya euh, sa entreprise yàqu yàqu na depuis naar yi waa Dubaï waa Arabie Saoudite waa waa Koweït ñoo àndandoo créer benn plateforme boo xam ne dina mën a def face des multinationales comme Bolloré kooku du ñëw fii pour euh, lijjanti ay vingt mille euh, vingt milliards ak yu ma xamul ce qui s'est passé te monsieur Mangara c'est le ministre du budget mhm. toog assemblée nationale bi ko interpellé dafa ni jël leen milliards 500. cent ci DP World mooy li ñu négocié lu état Sénégal action yu état Sénégal mon, mhm. euh, ñun nous la ñu rétrocédé pour gagner leen ci dëkk bi est-ce que DP World mi ngi woon ci ci CREI yi musuñu ci wax maître Félixo, c'est un avocat de l'état taxawaat mu ne lan mu ne DP World ak dara ndax dossier yi ñu am ñoom euh, pénal Beaucoup de, li c'est des choses vérifiables Nous euh, wax Mimi Touré ne 35 milliards te ñoom bi ñu euh, loi de finances rectificative pour Google. Euh, action yo ñu leen ñu rétrocédé Sénégal jëlaat ko mais dañu ne vingt 24,5 virgule cinq milliards. Mhm. donc année différence bi man daal li ma gëm moy Mimi Touré. Mhm. mi ngi takal ñi mu àndal xëy na dafa méré wala am ay problème politique ak ñi mu àndal. elle n'a pas été suivie. Mhm. Elle n'a pas été suivie par, par, son parti, ni par les communicants de son parti. Et pourtant, il y, a des jeunes, ben, initiative, 2035, on a un ministre de la République, en l'occurrence Mambayan, avec Gisnanti Thérèse Fayidou, Gisnanti Tamir, c'est un ancien compagnon de Khafor Touré. ci genn wàll ñu koy dëggal li nga xamante wax waaw mais xam nga man ñooñu du ma di leen tontu man Touré wax. Mhm. premier ministre ministre de la justice Khafor Touré. moom bu toogee foofu ñuy wax sax war na jug ne ah parce que moo doon défendre fii taxaw ak ñun ñëpp ngeen koy gis ci télé yi di défendre ne CREI yi bii lii ñu fiy wax dara amu ci. Euh, Mame Mbaye Niang man duma ko tontu koo xam ne da ngay dem ci plateau en en Europe di rusloo tout le tout un état di wax ay CEDEAO ak UEMOA ñooñu man luñ sama ñoo xam ne ñoom laay tontu man ki may waxal mooy ki mu ki wax. tey jii joxe ay détails man je tous bu nekk dama ko répondre ci lu mu wax dégg naa sax ñu naan ay dañu jël huit milliards xaw indi nañ ko mais yow boo nee euh, 8 milliards ca compte Monaco yi euh, Mamadou Pouy ak Bibo Bourgi top la porter la plainte ñu débouté la nga wat ñu débouté la hein ah, lolu bu féké jëli nga xaliss bi xana lolu gëna yomb transfert cash la war na nek ci loi de finances rectificative ils ont été déboutés partout dans le monde parce que la CREI est une cour à consommation locale pour juste animer la galerie

Euh, Mansour maa lay fay. maa ngi nuyu bu baax suma co-débatteur yi di kontaan ci bokk ak yéen plateau. Mhm. maa ngi nuyu aussi euh, téléspectateur DTV di rafetlu émission bi. di nuyu bu baax sénégalais yi. Mhm. Euh, di kontaanaat aussi ci invité bi ñu invité ci émission bi. Mhm. jàpp nga ni ni ko na fi déjà cours de répression de l'enrichissement illicite c'est juste pour amuser la galerie c'est normal euh, suma jigéen dafa nekk ci rôle mhm. comme pratiquement toute l'opposition d'ailleurs y a un rôle joue le rôle mhm. euh, qualifié nañu avons créé lunec, mais CREI damay rappeler sénégalais yi nii les nekkul Macky le créé mhm. parce que nous avons dañuy def confusion bi le président Abdou Diouf m'a créé en 1961 Nous tax créé le président ci jamono

on te paie par exemple 2 millions mais en réalité 8 millions nga may jox exemple. nga 6 millions def sa poche. mais donc ci kaw état bi mooy ñàkk ci loolu. loolu tax Abdou Diouf ak nguuram ont indi la créé ci ci loi boobu boo lire exposé des motifs de la loi bi loolu lañ ci wax bi ñu indee loi bi nag ñu toogaat ba jamono jii agsi annonce yi ñëpp xam nañ lu xew. gis nañu parce que Wikileaks ci bopam waxna monsieur 15 pour du ñun sénégalais ñoko wax daggloo ay koko 3 millions ay hôtel yo xamné dafa waroon recevoir ay ay ay ay émir ay émir saoudien hôtel yoyu fay nañ ko Karim Wade ba légui gisuñu ko ñu gis né waji aussi yorna alal jo xamné ne jéggi dayo dama la jox ben exemple fi mhm. euh bo jëlé ressources yi nga xamné ne nañ ci jamono ji Karim 504 milliards. 504 milliards xalé bu ndaw. boo xam ne bu mu duggee ci nguur mille 2002 la baayam dugal ko ci jox ko def ko ministre conseil jox ko ANOCI jox ko cent quatre milliards yi boo xoolee vingt 28 société créé na ko Karim Wade te boo xoolee vingt 28 sociétés yooyu yépp mi ngi ko créé à partir de deux 2002 bi ñu ko joxee aussi la la société di commencé créé dossier yépp a ngi fi ak man boo boo boo paree ma jox la ko nga photocopier ko vingt 28 sociétés yi. Nous donc entre 2002 et 2013 versé 99 milliards 129 684 99 milliards 129 millions 684 296 moins versement donc bon, on différence bi. Mhm. mu ngi que 98 millions 627 milliards. 625 millions 684 246. 296 différence vous ñu ne Karim Wad, fan nga ko fan fan nga ko jëlee. Mm. Lolo waralun. première mise en demeure deuxième mise en demeure parce que nous dem ba ci découvrir compte Monaco Le compte Monaco yi mi ngi fii dinaa la parce que vous xoolee même compte Monaco yi li ci a ñi ci gis Alex Alexandre Saskiran, Paul Van Ibrahima Khalil Bourji. boo xoolee ñi nga principaux bénéficiaires c'est les mêmes. Moi, c'est les complices de Karim Wade. Vous voyez les 28 sociétés, c'est les mêmes bénéficiaires. Mm-hmm. Donc, il faut l'air. Ça fait l'air. Alors, je dis que Karim Actuellement, ce que vous l'État a dit que c'est un Effectivement, il y a 200 milliards. Mais si vous voulez faire ça, il y a des gens d'accord peut-être mettre mettre si rek xam nga euh, tout début bi ñu que ni mise en demeure boobu ngay wax bu njëkk ak bi ci top yépp bi waxé somme yi nga xamanteni bi procureur fait point de presse li nga xamé ne lañ ko juñoon ça avait dépassé largement la barre des 500 milliards. 680. Voilà, 600 et quelques. Tu as dit retrouver 200 milliards que tu as targué wu que tu as recouvré, ne serait même 200 milliards. Est-ce que ce n'est pas, euh, en d'autres termes, un aveu d'échec Non, non, non du aveu d'échec xam nga lu tax. Mhm. temps ñi politique du temps justice. loolu am na xam nga politicien bu ko neexee tey jii man politicien benn bokk yaakaar su ma neexee Karim Wade sàcc na mille milliards. Mhm. damay politique. bu ko neexee moom mu taxaw ni jëlul dara gis nga euh, Sow. Mhm. man mii di wax ak yow j'ai travaillé sur le dossier Karim Wade. dama lay jox benn en tant qu'avocat dama ci liggéey. jusqu'à trois heures du matin. boo duggee internet. ni ma ko doon défendre mi ngi si ba léegi mais dama lay jox benn exemple. loolu la ci défense bi dama ne ba fi may wax ak yow gis nga système bi ñu doon bi défendre bi ñu défendre Karim Wade. Mhm. même système la défendre Khalifa Sall. Mhm. man si sama bopp mas naa bind ben ñu ñu préparer ben conférence de presse pour avocats yi lu ñu lire les avocats de Karim. ma def ni ma bind ci ni Karim eh, eh, Karim est blanc comme neige gars yi dañ ma ni dindi lii dañ doon añ dañ doon reetaan mais jaraaf tu te permets de dire que Karim est blanc comme neige Karim est un voleur. ah bon je ne vais pas le dire c'est des avocats de Karim Claudie. l'ont dit tu te permets de décrire que beaucoup de les Sénégalais vont te rire nous avons toujours défendu Karim sur le plan de la procédure Défendre, défendre, défendre défense défendre yépp incompétence de la y y une une irrégularité de la procédure mais on n'a jamais dit que Karim n'a pas volé même chose pour Khalifa Sall dinañ ci dugg dinañ ci des si ñu am mbégte tamit di dalal ci plateau bi Mouhamadou Faye di directeur des élections pour LDR Yeesal bu président Modou Diagne Fada ba pare bokk ci kuréel gu yees goo nga xamante nii nag parti bokk ci kuje gi taxawal nañ ko tudd duppe woon ko correct euh, monsieur Faye ñu ngi lay nuyu. Euh, merci Mansour ñu ngi lay gërëm bu baax di la nuyu également di nuyu ñu nekk si télévision bi yëpp. Euh, di nuyu particulièrement ñi ñi nga xam ne que ñoom lañ bokkal émission bi. di ñaan aussi que lépp luñ fi wax mu nekk njëriñu askan bi. Mhm. li nga xam ne daal askan bi dina si dina si jël njëriñ bu baax. Mhm. alors di wax rek lépp. kaddu bu nga xam que fas yéene nañ ko wax bu fekkee que amna ko koo xam ne dina ko heurté parce ñu ci si jégalu d'avance mais surtout euh, wax bi yépp nañu jël en considération que amna euh, sénégalais ñi ñi déglu donc nañ leen nañu nañ jox respect ñooñu nga xam que ñu sénégalais yu ñu gën a xam ñi ñuy déglu ñu ñuy déglu un peu par rapport rek euh, xew-xew bi manam 200 milliards yi nga xamante euh, ancien garde des sceaux ministre de la justice jot wax que ni euh, dans la traque euh, des biens mal acquis un peu au niveau de votre parti vous êtes né des flancs du parti démocratique sénégalais ce que vous dire en d'autres termes que vous avez eu à travailler avec Karim Meïssa Wade ci Wall. wàll mhm. ban commentaire ngeen di def par rapport que sortie ah, en fait c'est pas parce que travailler travail ici, Karim wala le travail ici que nous défendons nous xam ne gëmuñu mhm. Nous, dañu fondamentalement que li ñuy ah bon Amour. Parce que aussi, euh, euh, je rappelle à Maître, on n'est pas juriste, c'est vrai, mais quand même, euh, CRI, qui est créé en 81, en 93, mon fatéoul, bon djoumoul, président Abdou Diouf, bon lire architecture judiciaire, bon le aussi. Donc c'est bien que président Maxal m'a ressuscité la CRI avec des objectifs bien précis. Benenbi aussi, genre genre genre genre wax c'est-à-dire man ma doon défendre dossier Karim. mais tay gëmatuma ko défendre moko ko Sénégalais yi nekkatul loolu lañ soxla si si homme politique. c'est-à-dire booy défendre da ngay défendre principe. ak lu nga xam gëm nga ko boko ko boko défendre quel que soit le bord bu nga nekk. alors sur les 200 milliards ñu wax ñep ñi ngi fàttaliku Sénégal ñep ñi ngi dégg euh, Amath Dansokho mu doon wax nan Ablaye Wade day doxantoog 1000 milliards. Karim Wade dañ ko jàpp ak surtout avion bi et cetera ñu fay dugal xaalis donc ñoom il parlait de liquidité. te Wade da ko poursuivre. il ne parlait évidemment de ko poursuivre on l'a on l'a débouté. ah ba Wade da nga ñëw. oui oui Wade da gagné ñëw dans que je veux dire voilà donc. ba léegi fay ko sax amoon na. non Abdoulaye Doro mën na dépassé na yooyu. Mm-hmm. alors donc pour dire que euh, CREI bu ñu ko créé ne ne waa ji kat jël na xaalis liquidité lañ doon wax nous avons aussi le Premier ministre Mimi Touré a recouvert 200 milliards. Mhm. Et nous avons que 200 milliards pour accès à Karim Wad. Alors que même l'arrêt, mhm. même l'arrêt, je pense, à 60 milliards. Bien que nous condamné, condamné Karim Wad. Mhm. Ensuite, ensuite, le Premier ministre Mimi

C'est et pas uniquement et pourtant sur les 26 personnes qui étaient sur la liste euh, un objectif politique. et puis aussi. il faut que nous ça mm-hmm. est ce que la législation permet au moins que ñu ñu mais non ni si ëpp ni transiger bok c'est les gens qui aspirent à diriger ce pays là. te ñun bëgg nañ suba ñi ñuy diriger mu nekk ñoo xam population am nañ confiance ñoom xam nañ li ñi def. Mhm. donc motax ñun kuy wax bay wax ne dañu transiger nañ ñu génne la liste né ñi kat ñaar ñoo tan pour que population mo xam. Mhm. alors sur maintenant le plan de xaliss bi duguna LFR ou dugul LFR. Mhm. c' est buñ démé ba recouvrer xaliss je parle sur le contrôle des sur le contrôle d'un économiste. Alors, la, euh, loi 2011-15 euh, du 8 juillet, je pense, 2011, pour moi, je aussi cette mhm. loi. Portant, loi, organique portant euh, les finances publiques. En son article 4 dafa a une bonne recette buy Ou wala bonne dépense bu exécuter la loi de finances. Mhm. article 5 même loi de monnaie, loi de finances 4, en caractère de loi de finances. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative ou la loi de règlement. Pour ce qui nous concerne, c'est la loi de finances rectificative. Rectificative, LFM. cest à chaque fois mhm. qu'il y a bouleversement de l'équilibre budgétaire ou le financier, d'abord, la loi de finances rectificatives. Et nous avons le président de l'Assemblée nationale. Moi, je suis le garant de la législation. Je parce que bi ñu ko waxee léegi Pape Malick dañu moom mën nañu euh, faram-fàcceel wax ñu fi nga xamante ni peut-être deux cent milliards yi nga xam ne gis ñu ko ci LFR bi peut-être fu mu dugg ci genn wàll euh, damay leeral d'abord mhm. que ne euh, Mimi Touré la ñuy commenter ay waxam mhm. te moom ci boppam comme ni mu ko waxee sànq focaliser wul rek si Karim Wade mhm. peut-être ñoom bu ñuy répondre ñoom ñoo focaliser si Karim Wade moo tax ñun ñu topp leen foofu mais ñun xam nañ bu baax que Mimi il a te xaalis Aïda bokk na ci te ne Karim Wade rek Bourgi la Mamadou je voulais le préciser. Mhm. c'est important. Mhm. Euh, beneen bi ñëpp gis nañu ne nit koy ci mbir ans la vol par exemple ñu dem ci bi condamné ko trois ans nous avons naa kooku soo ans condamné trois ans donc arc bu ci ay lii nga finalement ngeen jël c'est un mauvais c'est un mauvais débat c'est un mauvais débat je le dis. Et dit non non non yaa ko wax yow yaa ne yéen a ko doon top temps. finalement ne ngeen temps en tout cas y a ko wax c'est la c'est la coalition de l'opposition moo ko wax mm-hmm. <laughs> yéen ñaar kenn wax na ko ci. Mm-hmm. c'est pas sous le contrôle de nos téléspectateurs. Mm-hmm. loolu je pense quand même que dañ ci war content parce que nous avons topé 10 francs nous ci am juróom euh, euh, euh, juróom par exemple lu ñu topé toppee bu am dërëm loolu sant yàlla la. fi nga waaw xaaral xaaral xaaral xaaral rek moom mu non non bien sûr dëgg la parce que xam nga tax ma dëgg la ñi mhm. ñu topp ñu Karim kese kii sànq expliqué na la quoi qu'on puisse dire wax na lien yi am lien bancaire yi am entre Karim ak Bourgi mhm. comme tey rek nga xëyoon tey Macky Sall jóge non comme tey nga xëyoon président Macky Sall fi nga génnee compte bancaire gis ne Franck Timis dugal na ci xaalis gis ne peut-être ay hommes d'affaires dugal nañ ci loolu quand même c'est lien dangereux boo xam ne kenn widiyu ko te am na fi. mais est-ce que ça mais xam nga man nag quand même c'est un débat civilisé. naa leen. avec difficulté da ngeen may déglu. tout kii li mu wax lu leer la. te ñëpp d'accord nañ ci jëf gi bëgguma si woon léegi nag. wax na ko sànq yow sa bopp avant mu koy wax moom avocat wax ko ko. Karim Wade. question procédure rek nga naan topp créé baax naam baaxul. musuma ko xaar rek. bu ngay wax bu ngay wax sànq. waa waa baal ma waa wax. bu ngay wax sànq nee nga waaw la rappeler dinaa la rappeler ngay wax. yow yaa ne. faut bien écouter fekkee waxoo rek nga ne ma waxoo ñu avancé. yow yaa ma ne bu ñu koy topp. CREI bi yóbbu ngeen ko à l' international ngeen ko fépp ñu ne la baaxul. Mhm. loolu mooy procédure au lieu ngeen wax àllkala ji mais ma xam nga dinaa la bàyyi nga wax. non non da wax sa wax. mais parce que yaay wax pour jaxase xelu Sénégalais yi. man lu may njëkk wax mooy leeral li nga wax ne amul. waaw waaw s'il vous plaît dinaa ñëw si nga wax si je pense wax loolu ma waxut. en ñi may déglu xam nañ li nga wax ak li may wax. l'essentiel mooy ñi toppoon Karim Wade naan créé bi ngeen def ak Karim Wade Macky Sall mook ar kii parce que c'est à dix ans pensant mhm. ci benn rencontre Abdou Diouf taxaw

Les région de Kédougou région de Diourbel région de Guédiawaye les région de Dakar est-ce que loolu tax nañu ne région de Dakar amatul. amatul loolu débat la c'est un faux débat qui n'a pas de sens. Mhm. léegi nag pour répondre à cette question. Ah. comme ni mu ko waxee confirmé, confirmer et puis je suis très content de voir mon camarade qui est en même temps un un collègue au ministère des finances muy wax maa confirmer li mu wax bépp dërëm boo l'État a état bi encaissé na ko war na ko dugal ci loi de finance la preuve Dubai Port wood ticket d'entrée boobu ñu jox moom mu ne wala Alaxam Ndiaye du Dubai Port World loolu ñu ko jox action wu état bi la te amul benn yoon bu ñu gis. ci bi euh, euh, euh, actionnaire Dubai Port World. non non waxuma la ba léegi man waxuma la alaxam laa wax. alaxam moo wax ne. Mhm. loolu ñu jël ci ci Dubai Port World. loolu action wu état bi mu amoon ci Dubai Port World la déedéet. dafa am ñëwee ci li may xam na ko. Mhm. ticket d'entrée mooy soo ñëwee tey barki total léegi ngeen gis mu dugal ticket d'entrée. parce que ticket d'entrée dafa am bokkul ak action mhm. loolu la saa yi fay te waruñu ko woon fay su fi Abdoulaye Wade ne woon il a fallu président Macky Sall ñëw topp Dubaï pour route pour ñu mën a soy ticket d'entrée léegi nag ticket d'entrée bi dugal nañ ko ci loi de finance léegi nag li des ndax war na dugg ci loi de finance mhm. je parle sous son contrôle loi de finance partie ressource quatre éléments ñoo fa nekk ressource fiscale maanaam recette fiscale bor bi ko considérer comme recette non fiscale mënuñu ko considérer comme recette don mënuñu ko considérer comme don lan mo des recette exceptionnelle Why why recette exceptionnelle mënul nek bien mënul nek action les rek la mën a nekk mënul nekk patrimoine gébu leen loi de finance je te défie génneel mo loi de finance bo xamné dañ bind nañ ne Sénégal am na tant de milliards ci recette fiscale am temps ba pare ñu salé si ne bien bi de entreprise bi de état beeko mom. est-ce que palais de la république état beeko mom? est-ce que mos nañ ko dugal ci loi de finance bien état la est-ce que mos nañ ko dugal ci loi de finance Sonacos état beeg est-ce que gis nañ ko ci loi de finance déedéet jour bu ñu Eden Park yi yi nga xamné ne gis nañ publication lañ koy jaay nañ ko gis ci loi de finance entreprise ASS dina contribuer ci loi de finance ASS mu ngi contribuer ci la finance xam fa lay contribuer ci loi dans les dividendes de l'État qui sont dans les recettes non fiscales mhm. foofu lay contribuer ci loi de finance suñu négocier bi mu tere wax na ko suñu négocier ba tax aéroport bi ñu négocié waatee ndax traque des biens en clé doon topp di topp ba dugg ci aéroport ba AIBD nekk de foofu tamit est-ce que fa woon ba ñu économiser fi ci ci loi am ci action boobu lay commencé dugg ci loi de finance mais nga xëy say taw ne dafa war a bokk ci loi de finance président assemblée nationale wax na ko lu ñu wax ñoom ñu koy interprété comme désaveu déedéet du désaveu lu mu wax dafa leer mhm. mais damay yégal nit ñi kuy xamoo lan mooy loi de finance xamoo lan mooy ressource de l' état xamoo lan moo nekk bien public xamoo différence entre le patrimoine financier ak le léegi nag la ñu war xam fa la ngay gis loolu mhm. lorsqu'on fera le point sur le patrimoine immobilier de l' état voilà foofu nag am nañu droit ne est ce que Eden Park état bi ko yor wala yor ko te loolu nag yaakaar naa état bi leeral na si parce que ku dem ba ne damay jaay Eden Park yaakaar naa yow yaa ci am sañ-sañ d' accord na fi un peu par rapport rek euh, question bi je pense bien que c' est euh, Pape Malick wax na ko ni expliqué na fi procédure yëpp fi ñu war a mën a jaar peut-être ba nga xamante ni loolu nañ ko gis ci loi euh, des finances euh, rectificative bi nga xamante ni nag jàpp na ni que te ci rubrique yi nga jot na ko fi cité que ni lii ngeen di wax yéen fi ngeen di arc-bouté wu tey di di jàpp bokkul foofu. lool du wax ji da ak loolu du wax ji tëlam yi. xam nga lu gën a garaaw. Mimi Touré dafa génne waxam cité de dafa génne waxam sànni. ñun mhm. ñu tontu ko. mu génne bind. point un Dubai Port Road deux. lu nekk mu cité ko. ne ci track bi la nit ñi ne ko déedéet loolu mënta ne. laaj ko ma bëgg rek leeral avant ñuy dem déjà bu ne 81 CREI yi dafa taxaw euh, pour xool ñi enregistrement illicite à l'époque c'est pas ce qu'on disait. Mhm. Abdou Diouf c'est le seul président nama socialiste yi baal boo xam ne dafa am dévolution monarchique de pouvoir. Mhm. Senghor a dem jox ko nguur gi. il avait besoin de tenir les les faucons et les et les grands cadres de son parti indi cours boobu waaye ngal la bu ñu demee ans xaw 20 ans après sama man man sama bopp bobu, xàmmewu ma àdduna di dox contexte juridique du dox Tay droit yi di dox mais Macky moo waroon jom mu ñëw di indi cours bu mel noonu parce que xam na ni euh, tay li ñuy wax yëpp nan, ay annonce wak euh, Karim dafa am cutis ci gestion du man maa wax c'est des corps aussi prestigieux que l'IGE wala ñeneen ñoo ko jox kitif ma ne ñoom bu ñuy wax ba tey mënuñu génne benn cour bu épinglé Karim Wade amut amul mhm. euh, jaraaf nga baal ma maître dafa wax ci loolu nii maa ngi ñëw ci moom ah. maa ngi ñëw ci moom mhm. jaraaf nga baal ma mais yow tu es plus fort que euh, vous vous êtes plus fort euh, je vous tutoie je je sais pas vous êtes plus fort que la CREI elle-même la CREI a dit que amul benn lien entre les amoul bénéficiaires économiques d'ailleurs le terme là a été débattu Amoul ben lien entre euh, Karim Wade société Karim Wade compte Karim Wade ak Bibo Bourgi wala ak keneen ñoom dañu taxaw génne fi 99 milliards de Monaco xam nga pour lan c'était pour yoku mise en demeure créer une mise en demeure tey nous avons, ba Antoine Diom, toog ne compte yooyu ñoom Bibo Bourgi top, ko 8 milliards euh, à peu près euh, moo fa nekk mais nañ ko indi xanaa qu'on cash la

clé yi mi yónni foofu commission rogatoire tey jii vingt huit comptes ak mille comptes ci yem jusqu'à ce jour ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ne ni que 99 milliards amu fa ña ko porté plainte dañ leen débouté ba ngeen demee euh, foofu te tey jii bu fekkee loolu am na pourquoi est-ce que jaraaf permettez-moi c'est pas la CRI euh, euh, enquête mi ngi ci arrêt bi ba tey mi ngi arrêt bi daal li ci am ba am ah, ak seen ay Antoine Diome ak seen propre parquet spécial li am ba am ñoom ñoo taxaw seen bopp ñu ne amul lien bénéficiaire économique un tel ou un autre ma bëgg yeggali euh, tey ji dama dégg mu naan euh, famille Bourgi euh, bénéficiaire économique may rappelé ni famille Bourgi ñoom bi ñuy wax ils ont fait ma lan lañ koy toppee délit d'amitié ndax famille Bourgi ci boppam ils étaient plus proches des des des des socialistes ba ñuy am seen alal Sénégal di créer seen ay sociétés ñoom ñoo doon à l'époque ànd ak Senghor seen maam di créer ay entreprises Karim Wade du politique mm-hmm. mu ne Karim Wade dafa créer ay ay ay ay société mais tek que ci loxo anamu lutax tax ba léegi cinq permettez euh, vous permettez vous permettez anamu mm-hmm. bu féké lolu amna na ba bataille. pourquoi on nous cite à Dubaï Port World di ñu citer euh, ay affaire yo xamante ken xamul fu mu jógee nañ ko génne mm-hmm. ñu gis ni li Karim Wade mais mun ils peuvent pas être plus loyalistes que le roi d'ailleurs do gis ku am taxaway ci biir APR wala ci Benno Bokk qui kuy défendre Mimi Touré do ko gis ñi ñi ñë ñi ñëw dem ak di ut place rek ngay dégg ñuy défendre euh, Mimi Touré ci li mu wax ma bëgg yeggali en disant affaire Aïda Ndiongue fité na ko. Mhm. man tontu dama ci tontu point par point Aïda Ndiongue dafa dem première instance déjà euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu gagné gagné l'état du Sénégal dem euh, en appel gagné waat état du Sénégal ñom ñu def pourvoi bo xamné juriste yépp a ànd ne lii cour de cassation amul droit n'a pas le droit di dugg ci fond wu dossier lan la mënoon def au plus au pire des cas bu fekkee dafa bëgg and ak parquet euh, Sénégal lan la mënoon def dal di len renvoyé wat cour d'appel ñu xolaat affaire bi waaye moom dafa ni nañ tek loxo ci bien ay de ay de njong te ñoom seen bopp. Mhm. arrêt pourvoi de cassation bi n'a jamais parlé de 45 milliards bi Mimi Touré di wax dafa ni 20 milliards la té expertise bi ñun dañ ko dañu défendre en première instance défendre en seconde instance nous top ñu ci lolu ni que c'est hyper surévalué 20 20 milliards nous ñu ne nous la topé ay en cassation nous devons né 20 milliards nous saisir selon des experts qu'on ne connaît même pas Nous saisir te tey ji duñ ko kii et tout le monde avait compris à l'époque à l'époque que xaalis bi dépensé nañ ko li ñu jël ay bijoux ay danjong ak yu ma xamul ñëpp soupçonné woon nañ ñu defaan ne moo tax mu gagné saa yu gagné ñu dem yóbbu ko nag euh, fële cassation ñu juger dans le fond jurisprudence boo xamante ni kuy juriste te honnête xam nga ni loolu musul am ci histoire Sénégal du de euh, mais may ma rek ma yeggal ñu dañu dañu dañu dañu wax gis nga euh, bu ñu bëggee waxtaan xëy suba lii liir lu la neex da ngay wax sénégalais yi loo xamante ne am na. Mhm. yéen nañ Karim Wade euh, daan nañ ko. mënuñu fexé tay ji neen ba indi né sénégalais ñu doute seen baram né li la dégg na mu naan dafa am ñu transiger Mimi Touré waxul loolu té Mimi Touré motax ñuy débat Mimi Touré tuddul fenn dafa tuddu ay société yo xamanteni bokul sax ak mbiru traque des biens mal acquis elle a elle a marché sur la plate-bande même d'autres ministres le cas de de la Sunewor mais fii seetaan nañ euh, euh, euh, Amadou Ba assemblée milliards lan la wax dette lan la wax ci problème immobilier ak lan la actif problème donc lool lan la Karim Wade Abbas Jaber lan la ak xamul la koy wax Mansour bi Abbas Jaber di de sortie ñu tribunal de cour arbitral fay ko 7 milliards d'indemnisation. indemnisation. mais kenn weddiwul ni ticket d'entrée. mais ticket d'entrée. ticket d'entrée, entrée bi nga wax ne action la yaa ne wax ticket d'entrée. entrée action yow ticket d' entrée kenn musul weddi kenn musul weddi ni ticket d'entrée. entrée wala déedéet dama ni di depuis wóor lañ doon wax kenn musul weddi xanaa loolu euh, toto tappaate yi ne APR sax xam nañ ni ticket <laughs> d' entrée day am bu société multinationale di ñëw dama ni dans le cas dans le cas de de de de de de de Dippi Wóor du loolu ma wax ni euh, Abba Jaber fay nañ ko 7 milliards pour mu génn ci ci sune wóor comme ni ñu xëyee suba rek jox Big Togo euh, daal di jox Big Togo 12 milliards gis nga nit da ngay wax loo xamante ni yenu na maanaam mën nañ ko prouver on peut plus tromper les Sénégalais avec la traque wax loo xamante ni amul xam nga këyit état du épicerie. c'est pas le boutique naar du coin. lépp ay am traçabilité. lépp ay fi donc euh, en ñoom bu ñuy wax nañu wax nañ respecté Sénégalais yi leen di seetaan waaye jël ay numéro compte ngi woon au du système. un peu lu jëm ci wàllu li nga xamante ni fu mën a teg loxo. démb kàddu gi may défendre xam nga waxum kilifa du wax yéen. je vous en prie Nafi ci benn li mën a teg loxo. nga baal ma. Euh, bari na. xam nga dama la jox benn exemple bu leer. Mhm. par rapport à euh, les qui solo ci traque bi muy Karim Wade parce que bu ñu wax traque bi principalement Karim Wade moo ñu wax bien sûr il a des complices bien sûr am na ay ay jëlkat yu ndaw fu ñu on ne sait pas barki démb Mamadou Lamine Massali un simple PCA ñu ne sàcc nañ ci 15 millions trois ans après bi PDS daanoo ça laisse des grincements de dents mais il n'est pas chômeur hein. non non il n'est pas là pour se défendre. non non non il n'est pas là. mais dama on parle de on parle d'enrichissement illicite. il n'a pas été suivi par la justice. attendez attendez. mais pourquoi vous le dans ce débat il n'est pas non non soyez un gentleman la

copain lijjantil ma foofu mënu ma sawaay instant yi nii jamono yi may wax yow sawaay mënu ma instant yi nii mënu gu ñoo génn xaalis wóorul Ah, ay waxu na bàyyi ma xam nga dama ni la boo jëlee vingt huit sociétés yi pour ñu sérieux ay waxu léppoon léppoon yi ma ne bàyyi ko bàyyi ko ay kiwu feneen wala nga wax Nafi il faut dire nommément des noms même noo toog fi naan ay euh, wax naa sa membre PDF ay nit naa kari ay avocat wax na waxu na sa kanam kilifa du ko wax numéro compte la Nafi on s'écoute un peu lii ay numéro compte la fi nekkul nekkuñu fi du léeboon bu lippoon. allez-y dama ne vingt-huit sociétés yi benn bi euh, benn bi la Karim Wade. yaa ngi dégg benn bi benn bi la Karim Wade def turam yaa ngi dégg. Mhm. boobu 2003 rek dugal na ci 2 milliards et poussière. 2003 est-ce que yow buñ la la indilee citation di nga ko répété 2002 lañ ko jox Anoussi 2003 ci compte mënoo Monaco yi bi li def turam moom na nga ni Karim Wade ci boppam liiral nga ni Karim Wade répété li nga wax Karim Wade moo def dama ne moo wax lan dama sénégalais lay waxal dama ne Karim Wade moo def 2002 lañ ko jox Anoussi 2003 ci société yi nga xam ne. Ah, créé nañ ko mais déglul nag ah, madame. xam nga ñii seen système la bu ñu bëggul mu mu mu leer rek. dañuy yëkkati poussière bi. Mm-hmm. xam nga pour Sénégalais yi duñu xam nu mu demee. Karim Wade dugal 2 milliards ci compte ça va ñu woo Karim nga xam ne sax du woon militant PDS. waaw et alors fële dénk ko ANOCI. a ngi ko doon ne ngañ te doon mu dugal ci compte am bi nga xam ne moom créé na ko def ci turam Karim Wade dugal na ci 2 milliards et poussière bu Monaco. kañ compte am kese laa wax de. yeneen compte yi xoolal mi ngi nii bénéficiaire yi touché toujours les mêmes yaa ngi dégg. bulu société bi ñu tudd bulu del holding toujours Ibrahima Khalil Bourgi nga dem ci beneen bi gi des Ekim SA Ibrahima Khalil Bourgi nga dem ci bi gi des Manzi Afrique centrale hmm. Ibrahima Khalil Bourgi bénéficiaire bi nga dem ci euh, Afriport SA toujours les mêmes choses Mamadou Pouy Ibrahima Khalil Bourgi boo liiree gis nga société yëpp c'est les mêmes mi ngi nii

kon loo ko doon défendre. ma kan. yow yaa ko fi wax de. nu ma ko défendre. loo ko doon défendre ba léegi la ma ko doon défendre sur le plan de la procédure je le défends. dama parce que tey da nga dem APR démb yaa ngi opposition bu teyee di wër déglu ma rek ma ne ma moo tax ngay wax li ma bu yoon nee mm-hmm. Karim Wade. na fi bàyyi ko mu dellu. bu yoon nee Karim Wade. Mm-hmm. ki ko war a topp du CREI article 7 wax ko man ma nekk juriste te gëm li ma gëm dama naan CREI anduma ci. parce que comme article 7 dafa ne bu bu fekkee ne dafa am immunité wala privilège de juridiction jox leen ko ki nga xam ne war na ko mën a àtt loolu ça sous-entend ñun ñi dégg droit ça sous en tant que mën nañu permettre beneen beneen cour bu bokk le CREI pour mu am compétence en matière d'enrichissement illicite kon man man noo defal nank dama ne ñun lu ñu gëm loolu lañ wax dañu ni nañ ko jox même bu fekkente ne blanc fekkee ne cour de justice nañ ko ko jox

en fait euh, duñ ne ou non, mais mm-hmm. euh, balaa ma mais maître je pense que de de de bind trop bu mu trop de bi mu bëgg ko gêné. <laughs> maître euh, des fois moi, je me perds dans ses propos parce que cohérence dafay xaw a manqué. alors quand quand vous citez des noms né diw wax n'ak diw c'est encore une fois je reviens sur ça. Mm-hmm. Sénégalais la ñuy waxal nañuy bàyyi di dans dans dans le vide. Mm-hmm c'est pas pas la quantité des propos qui est wax mais c'est la justesse des propos que nous avons Sénégal mm-hmm. mais ce n'est ni la quantité ni le débit avec lequel vous vous parlez moment Sénégal mais ce que mm-hmm. et pour moi je wax ni et, pourtant, c'est un praticien du droit, il était au cœur du système. ça ça. Sénégal même pas

dama bëgg Sénégal yi ubbi seen nopp. vous faisiez partie du collectif. madame il faut apprendre à écouter les personnes. c'est important. dossier Karim Wade li coow li bëri bëri ñaari nit ñoo ko liggéey jàpp ñett ñi la liggéey laa wax ñi ko liggéey ñu toog di bind di réfléchir. avocat am avocat yi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon dossier bi mooy maître Ciré Clédor muy maître Siré kii ni ñu koy waxee maître Bathily et cetera et cetera maître kii Amadou Amadou et cetera et cetera. y' a pas de mais attendez attendez non il faut écouter. ah bàyyi leen ko bàyyi leen ko ngeen déglu on va comprendre. je vais me taire donc il faut vous taire. puisque bu leen mu leer moi je vais me taire. ba bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu leeral. dafay leeral bàyyi leen non bàyyi leen ko mu leeral. dama ne. bàyyi leen ko mu leeral monsieur bi ñett ñit ñoo ko liggéey. ñett ñooñu kan ak kan la. maître Jaraaf Sow. maître Pape Demba Cissé maître Jaraaf Sow yow la. man la. waaw ak benn maître Pape Demba Cissé. ak maître Cheikh. kuy Cheikh ñun attendez da nga may déglu ma. leeral la bu fekkee da nga bëgg mu leer. bu fekkee waa bu ñu wax nga tekki tontu. man je ne je ne non xam yow doo mas a muus parce que boo dul déglu sa wax bu ëppee sa déglu. waaw baax na tu dama ne. bi ñun ñett en tant que juriste interne ñun ñoo toog. di travail merci beaucoup assistant juridique ñun ñoo toog di liggéey di dossier bi ba 5 heures du matin xam nga luñ ci am jox suñu avocat mu xool ni lii lii kii na wala changé lii bu ñu paree les autres avocats ils ne foutent rien. donc vous étiez oh, stagiaire quoi. non non pas stagiaire je suis juriste non attendez. xam nga di tuutal nit naan stagiaire. moi je suis doctorant kenn ku ma diplôme fii ci Sénégal.

alors maître euh, xam expliquer moi, li expliquer moi. Michael, euh, Michael, euh, débat bi. Mm-hmm. en fait même Mimi Touré bu koy lancé. Mm-hmm. c'est ce genre de débat le cest un virus que les gens veulent Dougal si débat politique pour un peu camoufler. wax carence yi ak ba pare li a wax réellement si dëkk mm-hmm. alors il a rappelé tout à l'heure li nga ont ne moo si si si loi de finance mais dañ taxaw ñu ne kat Eden Rock état bi moom mais tout le monde sait que Eden Rock d'affaires générer les ressources fu mu Vous faites bu que état mon Eden Rock Eden Rock génère des ressources mais ressources yooyu fa la war à part loi des finances donc forcément comment. après vous vous aurez votre temps de parole. allez-y. Faut que gisee ne Eden Rock d'un ko loué. si. c'est occupé. Hmm? fan nga gisee Eden Rock c'est c'est c'est occupé. lu nekk en en en processus de vente. Hmm. ba ñu publicité ne vente là. Je demande de nous prouver que est Je suis désolé. Je continue. C'est sous-scellé. Je continue. Je continue. Moi, mhm. Eden Doc. Moi, HSS. Moi, HSS, HSS, action. Des et dividendes. Le mhm. mhm. bien patrimoine pour next étape actif. Pour next générer. ressources de fait de goût, loi de finances. L'olmum, fait maintenant comme nous le problème c'est pas lan problème. jël problème Sénégalais yi la encore une fois. ils mm-hmm. am habitude. et je pense que la classe politique il faut que nous xaar dans le vide. pour man virus comme je l'ai dit c'est un virus que les gens ont juste voulu intégrer dans le dans le débat politique. Mm-hmm. pour camoufler ses carences mais xam nga tey li am mm-hmm. ils ont recouvert 200 milliards sur 1000 et quelques milliards On gagne gagné l'ordre la man doo topé 1000 milliards ton prendre tout le pays en haleine pendant 5 ans pour dire non c'était pas ça c'est ça Le sénégalais est également manque de vision là. manque de vision on ko Moi, je pense que c'est fini, ñu war a fi ñu a traque des biens yëkkati supposé mal acquis le dossier réglé nañ ko Karim a été blanchi si ñoom li wax dem il n'est pas blanchi. Il a été, il, a été gracié, gracié par sur, des questions, sur des questions précises. Ben. Sur certaines, sur certaines questions précises, il a été gracié. même pas gracié, mais blanchi. Mm -hmm. Ne defu mhm. Li ak li, mom lañ ko jappé. Arabé ko wax limi wax ni c'est pas sama invention. Li ak li mo fi né, mimi tour taxaw né recouvrir nañ 200 milliards. Man sénégalais lambda, je m'attends à ce qu'on me dise qui ak qui ak qui fi ak fi li jël suñu xaliss pour que prochainement mo mëna xam kan ak kan ñom ñoom lañ jox suñu réew ñom lañ jox suñu alalu réew ñu lu ko pare nangu tra parce que boo nangoo tranché et eh, j'en suis sûr. Mhm. je suis pas dans les secrets de euh, autour de Karim sera près de Nafi mais Karim n'a pas tranché. Mhm. parce que tranché mooy nga nangu ne man jël na ku ko def mooy nangu ne jël na donc nañ wax ne kan kan on tranché le débat s'arrête là. Mhm. encore une fois man pour man. c'est un faux débat que les gens ont voulu. c'est un faux débat pour avancer un peu un peu par rapport à la question je pense bien que le mën nañu dox ci leneen parce que du objet uniquement waxtaan bi parce que am nañu ñaari ponk yoo xamante ni moo nekk moo war a nekk sax solo waxtaan wi bu ñu weesoo coowal 200 milliards yi nga xamante nag jàpp euh, Mimi Touré di envoyé spécial bu président de la République son excellence le président Macky Sall jàpp na ne que genn wàll jot nañ ko ci jële ci traque des biens malaki am na geneen coow goo xamante ni nag moom ni këtt ni jon ci jamono ji mu jëm ci wàllu dialogue politique dialogue politique bi nga xamante ni nag ban ko yëkkatee am na parti yoo xamante ni dañu jàppe seen bopp kan ñoom ñooy l'opposition significative doon taxaw ni duñ dem noonu la kàndaaral ni duñ dem ci dialogue boobule am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi nekkoon ci cadre bu duppee correct ñoom jotoon dem ca dialogue ba waaye dafa mel ni ñu mujjee mujj na leen métti ci genn wàll jàpp que ni dañoo mujj sax jox dëgg ñi nga xamante ni dañu woon duñ dem ci dialogue boobule dama bëggoon rek ñu ànd ak Codé Ndiaye mu xamalee ñu li nga xamante ni mu indi coowal wala sax ñu ànd ak Ibrahima Fall mu xamle ñoo ko li nga xamante ni moom mooy coowal dialogue li fi mujjee. jéego bu njëkk bu fas yéene nasaxal waxtaan bi jëm ci wàllu fichier électoral bi ñi ñuy woowee noonu na li ñee génne seen bopp ci waxtaan bi ndax li ñu jàpp mooy lu jëm ci wàllu processus électoral bi nguur gi fas yéene wu ci taxaw bu baax. yan mesure la ñu war a jël ba élection yi ñu jëm. doon élection yoo xam ne ci jàmm la ñuy la la ñuy amee élection yoo xam ne yu leer lay doon élection yoo xam ne dina wuut ak élection yi ñu passé 30 juillet loolu moo nekkoon waxtaan bi waaye bi nga xamee ne dugg nañ ci biir dañu seetlu ne majorité bi li ëpp ci seen taxawaay mooy fexe ba bundu xatal ba xatal nit ñi ba duñu mën a bokk ci élection présidentielle ñetti ponk ñoo gën a tax ñu génn ci waxtaan gi ñu séq ak ñi ŋànk nguur gi ñetti ponk yooyee yii la. xam nga ne caution bi Sénégal rek moom mooy am tey caution 65 millions yeneen yëpp yegguñu foofu ci Afrique te li tax caution boobu boo ko kaweelee amul njëriñ mën naa indi loraange ci biir réew mi mooy ku nekk fàttaliku na ki fi waxoon ne élection 2009 ak élection 2012 jëlee na alal ju bëree bari ay milliards dugal ko ci élection fii ci Sénégal. loolu li ko waral mooy léeg-léeg nit ñi danañ bëgg a nekk te bu fekkee ne dañ leen a teg ay conditions yoo xam ne mënuñu ko satisfaire bu ñu amee koo xam ne nekk na bitim réew mën leen a jox alal te jox teg leen ay conditions boo saganee mën nañ koo jël. ci bulletin unique nga xam ne nit ki buy woteeti du ñëw di jël juróom fukki bulletin benn bulletin rek lay jël bulletin boobu photo ñi nga xam ne ñoom ñooy xëccoo yëpp ñu ngi ci biir bu ko defee day am benn marque bu muy def ci ki mu woteel su ko defee. ku ne xam na njëriñ li mooy dootoo wax nit ne boo demee carte yi nga wotewul nang ma ko indil dangay obligé wote bàyyi foofu boo génnee kenn du xam ki nga woteel waaye yi nga xam ne mu ngi ci constitution bi nekk ci code électoral bi nga xam ne moom moo tëral naka la ab candidat indépendant di bokke naka la ab parti politique di bokke loi boobu constitution bi changé wu ko kon nañ ko respecté dëppoo ak moom bu fekkee ne bëgg nañu ñu dem ci élection yoo xam ne jàmm ak salaam rek moo koy mujj ñi ñuy woowee pôle des non alignés di xamal askan bi ne nguur gi bëggul benn yoon ñu dem ci ay élection présidentielle yu amul benn coow loolee tax ñuy artu jëwrin yi nga xamante ne ñooy seq mbir mi ñu daal di dogook jongante bi laaj balaa ay di ci judd. jaajëfal bu ñu dellusiwaat ci plateau bi nag noonu ko gisee rek waxtaan woo xam ne ko jàppoon ci fukki fan dafa mel ni dafa mujj. Euh, jaxasoo ndax euh, ñetti point rek d'achoppement lañ jàpp ni que ni moo waral waxtaan wi ni koy sóobe woon wala ni ñu ko sumbe woon sax yaakaaroon ne dina la yeggee mu mujj yeggul lu ci njëkk nag mu bokk ci système de parrainage yi nga xamante ni kuje gi bokk ci ak non yi jàpp nañ ni que ni du loo xamante ni lu jaadu la. bulletin unique moom tamit réclamé nañ ko ndax jàpp nañ ni Sénégal rek moo bokk ci bokk na ci ñetti réew yi nga xamante ni ñoom rek ñoo appliqué lu mel noonu waaye tamit lu jëm ci wàllu caution bi nga xamante ci jamono ji ñuy àddoo mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki

Ndiaye duppe woon waaye eh, fi mu mujjee mel na ni eh, eh, neexul. Mansour da nga may baal. balaa mooy dugg ci débat bi. Mhm. ma wax benn mbir rek bu sew bu ndaw. Mhm. sànq dafa ne mhm. deux cent milliards. yi nga xam ne moom la ñu waaw deux yi nga xam ne. moom la ñu nangu ci Karim Wade alors que 1000 milliards la xeebantal 200 milliards dama koy yëgal ne 200 milliards. Oh. mooy Sénégal pendant ñeenti weer ngay fay salaire 200 milliards. 200 milliards mooy Sénégal yëpp kenn bañ a fay impôt. pendant ñaari weer. loolu mooy milliards moo tax mu am euh, rek. maanaam 200 milliards ci ci wàllu peut-être bala ngay tontu sax parce que yaakaar naa ni euh, ñoom seen leader bokk na ci ñenn ku bokk ci ñoom di Babacar Gaye euh, jàpp na ni war nañoo teg sur war nañoo mettre sur pied pour ñu mën a. mais loolu ñun ñun loolu dañ ko daf ko wax ñun ku gën a baba kër Gaye ci wàllu woowu mooy président groupe parlementaire suñu parti. encouragé ko ay maire ñu ngi mais dama doon leeral foofu rek parce que dama nu mu waxee sànq deux cent milliards ku déglu day yaakaar deux cent milliards ñeent fukki dërëm la wax naa cent milliards su doon toog Sénégal pendant ñeenti weer di ko fay salaire day dem léegi par rapport ak question bi nga posé mhm. par rapport ak question bi nga posé euh, dama ci am kontaan bu baax wax ci parce que dialogue président yàgg na ko woote mu woote président woote ko nekk ki nga xam ne yoon moom la dénk pour mu war a mun a dialoguer

ne jitel dialogue loolu nek effort président Macky Sall def pour permettre d'apaiser le climat gannaaw nous bi nga xamné depuis chaque wéru tabaski wala mu appelé au dialogue ñu dem dialogue opposition bi taxaw ki un LDR qui ki bokku PDS ñom ñu Nous ci même cadre wa LDR yeesal dem ba gis na ñom taxaway bu ñu taxaway rafetul ñu correct correct mooy correct xam nañu lan mooy correct ku yaru ku baax donc ñoom su suñu demee ba gis ne si opposition bu ñu bokk war nañ ci génnee pour tuddee seen bopp correct parce que am na incorrect ci biir mooy ñi nga xam ne d'accord ñu ak ñoom li nga xam ne moom la ñuy def mooy ndaw si yi nga xam ne moom moo fi tegal PDS ñoom comportement bu ñu donc di rafetlu rek position boobu waaw waaw waaw alaxam Njaay baal ma alaxam Njaay waaw alaxam non non non en tout cas li ngeen tudd laa wax mhm. kii dafa tudd correct Oh, mais... Non, je, je m'excuse, madame. Non, non, non, madame, ne parlez pas de moi en parlant Je m'excuse, je m'excuse, je oh, oh, parle du PDS. Et vous représentez le, PDS ici. La PR Maintenant, ce que je dis, ce que je dis, ce que je dis, moi, là, je n'ai pas de S'il vous plaît, je n'insulte personne, madame, je n'insulte personne. Je suis désolé, ça n'est même pas le débat. Non, non, non, j'explique. pas l'objet du débat. En tout cas, en tout cas, en tout cas, mm-hmm. l'opposition qui s'appelle correcte, c'est te tuddewuma ko correct c'est ñoom la bokkoon. ñu génn je tenais à dire cela pour diir quand même que yi ñu ngi ñaawal position wu ñu taxaw kemm ne ñoom duñ fi dialogué ñu ngi ñaawal position wu ñu taxaw kemm ñu ne la kaay nga waxtaan pour lu jëmal réew mi kanam yow nga ne bokkoo ci wala waxoo ci loolu nekkul comportement boo xam ne ñu ngi koy xaar ci. républicain nekkul ah. comportement bu républicain nekkul comportement boo xam ne ñu ngi koy xaar ci. may ko may ko na un peu par rapport ak par rapport ak point boobu ñu bari dañoo jàpp que ne peut-être vous avez raté une occasion ne serait-ce que même pour résoudre yenn problème yu jafe-jafe yu ah, moom. wala bien euh, vous êtes en train de rater le train de l'histoire mais bala ngay wax ba ma mënee may rek ma may ma xool mbokku téléspectateur bi nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo. oui euh, salaamaaleykum sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. Boubi Ndiaye laa tudd maa lay woowee Géejawaay. waaw egsi la ak jàmm dégg nga li ñuy waxtaanee tey. ah. ma ni dégg nga li ñuy waxtaanee tey. waaw moom laa doon déglu nii sànq léegi moo ma bëggoon a. Euh, voilà ñëwal jox sa participation. waaw. waaw mhm. yow rek lañuy ñuy déglu de sëñ Modou. ah. man yow rek la ñuy déglu de wala sa participation da woo pour déglu ñu. malheureusement je mu allez y Nafi. d'accord da nga wax sànq ci euh, nga en 30 secondes euh, nga wax ci euh, li Babacar gay wax. Mhm, commission ñun ñep réclamer nañ ko. parce que mhm. dafa melni ni bi dañ ko loubal mhm. ndax buñu waxé waxee deux cent quarante cinq milliards président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. ah oui il a motax à l'entame de mon propos ma ne ko doo gis ku am kilifa ku ko mat. ku nek ci ñom bu défendre lolu parce que c'est dire que nous sommes des voleurs ndax kenn gisul traçabilité fenn ci li ñuy wax en rappelant que AHS également bi ñuy wax tay ñom bi ñuy jël koku diko def administrateur euh, provisoire. Euh, muy Ablaye Sylla di xaritu Marème Faye kooku société am Ecotra boobu mi ngi am ay problèmes yoo xam xam nga en général booy jël administrateur provisoire da ngay jël koo xam ni euh, parcours am dafa dafa kii ba mi ngi am problème ak banque mi ngi ko doon topp pour 135 milliards ñu tànn kooku les gens ont soupçonné qu'ils ont voulu faire main basse sur une des structures boo xam capitaine d'industrie la ci secteur privé moo tax ñu indi euh, Ablaye Mais mi gagné tout le marché pratiquement des gravillons de l'AIBD di di euh, gorou, Marème Faye Pape excellent jàmm Pape Biram dégg nga li ñuy waxtaanee tey. oui allo. allo oui yow rek la ñuy déglu Pape Biram. waaw maa ngi lay dégg waaw Mansour ça va rien def. waaw ça va kan la honorable député vice président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. waaw. dégg nga naa ko ma bëggoon ci joxe suma xalaat rek. Mhm. surtout sur le premier point. Mhm. ngeen doon débattre léegi mooy euh, l'affaire des tracts des biens mal acquis. Mm-hmm. en fait sax euh, je pense que c'est un terme journalistique. Mm-hmm. mais li am un cours de répression et de l'enrichissement illicite. Mm-hmm. c'est quoi c'est que Khalis bi nga xamné ay nit ñu des responsabilités. ñu abuser ci responsabilité pour ñu am Khalis pour luubal ko ce que mom mbir te li nga ci ay euh, liste parce que vraiment waroon nañ mën a bàyyi et ça je j'appelle ma ma sœur Nafi que débat bi neex na trop mais su mënoon déglu tuuti. je pense que euh, maître euh, avait des éléments yoo waxal li ngay wax xamante nañu man ak yow. mu ngi ko doon joxe. waxal li ngay wax rek éléments yooyu muy joxe dañ ko listé avec des chiffres et avec des noms te loolu buñ ko joxee dafa war a wane ne am na ay mbir ñu cité parce que bu ñu cité Eden Rock cité AHS loolu yëpp ci procès yi ñu gis ni mu nekk woon ay sociétés yoo xam ne dañ ko créer pour ay nit ba pare jël ay biens wu état def ko ci dafa amoon benn forme de détournement bu ci nekk te loolu aussi bu ñu demee ba créer yi jël nit condamné ko parce que tout simplement kooku dafa am loo xam ne daf ko lubal léegi le débat ne se pose pas en terme de ñaata ou pas. Mmh. même si c'est un milliard cela représente beaucoup à plusieurs niveaux le premier niveau c'est que xaalis buy dellu ci keesu état bi la mais le deuxième niveau c'est que fait, jox symbole à toute personne qui xamné da ngay administrer des fonds publics nga xamné ne waru cela, mëna may ngay jël ay fonds publics qui ko sa bop donc je pense que signal bi fofu la wara jublu mais que ñu ngi transférer des bi ci ay mot na 200 milliards ou matul 200 milliards alors que liste genn na mais même buñ ci jëlé ben liste rek les liste bi ñu jël ni même bu représenter 1 milliard ou 5 milliards ou 10 milliards est-ce que kiñ ko ci kiñ ko jëlé daf ko ci état bi c'est ça le principe je pense qu'il ne faut pas que nous noyer débat parce que oui, on t'embellit là, est-ce que vous avez une couloir de finance Non. Il faut que les ah. éléments une nous les lañ ci nous examiner par benn xool li nga n'est ne bien établi et donc tout le monde sait que l'état l'a récupéré AHS créé une société Il faut amener un pouvoir le pouvoir de créer des sociétés écran

Euh, boo ma mayee ma terminer ci dialogue bi ci lu gàtt rek gis nga ko wax nañ ko amna ay acteurs gis nga le ministre de l'Intérieur, mhm. c'est quelqu'un de crédible pour faire pour pour mener le dialogue li ma gis nii nag gis nga dafa am fo xamné buñ fa tolloo je pense que l'État war na jël des responsabilités. Mhm. parce que bo xolé parti yoy yep dajé fofu muy ay centaines de partis bo ci génnee parti représentatif mootuñ 15, donc 95 partis warul mëna nek fofu foofu di jaxase mbir mi ba tax li nga xam ne mooy ay objectifs dans des élections yoo xam ne dafa mun a nekk élection yu transparente yu libre mhm. yoo xam ne c'est faisable aussi et réalisable donc loolu war ko mën a yàq je pense que aussi war nañ mën a ubbi le débat et que le débat va se terminer à l'Assemblée nationale parce que le débat par excellence merci maa ngi lay gën a remercier ma voilà merci beaucoup honorable député Pape euh, Biram euh, Touré mhm. nga may ma tuuti rek ma expliquer c'est que en fait c'est pas quantité wu xaalis bi ñu jël moo important xam nga am solo mooy xaalis fu mu dugg ñun loolu la ñu wax. loolu leer na booba léegi mooy. ba léegi expliqué naa leen procédure LFR ak LFI te apport benn élément de réponse clair. ensuite parce que ça la réalité. mais il faut ma il est au ministère des finances il n'a qu'à nous expliquer la procédure. voilà par rapport ak yéen ñaar ah non hein? wax leen. expliqué <laughs> voilà fu mu dugg la ñu laaj. expliqué na te booba léegi jox nañu alors je disais. Mhm. Euh, ñu ne ci biram maa ngi lay nuyu moom yàgg nañ débat te foog naa coow jibul ndax day déglu ma wax te du attaqué nit. Euh, mu ne li mu lu biram wax dara amu ci nee nañ dañu def montant mais c'est pas vrai liste baa ngi nii. ministre Touré ci boppam moo weddi bopp moom moo leen weddi ndax waxu xaalis moom waxu lan la wax ay montage financier AIBD pour que ñu mun a xam li mu wax ndax am na gagné nañ 100 milliards dafa waroon lu nekk mu épingler le dossier maire.

la première remarque bi mhm. euh, la dame là nga sur tous les toits que euh, gars yi ci euh, dara mhm. rien mais les gens seen admettre dame milliards yi dañ ça veut dire que. non kenn waxu fi loolu. Hmm. xam nga man loolu wax nee na nee na 200 yi. man man man man man ngeen wax ngeen waxtaan man ngeen waxtaan. man ngeen waxtaan may ñu may ñu ñu ngi lay déglu yéen a ngi 200 milliards yi dañ koo sàcc. ça que réellement am na parce que yéen surtout tous les toits da ngeen ni dërëm jëlu leen ko ci euh, jàpp leen dara ci périmètre nangam nangam léegi yow te admet que 200 milliards yi am na mais dañ koo sàcc ça c'est un premier point. deuxième point petit top, moi, en matière de traite des bien il y a le numéraire et et nature. Nous loolu moo am. xam numéraire ak nature. numéraire la ñuy nationale. nature les kër les nous les voitures. les jamono yi ñu. ñu ñu trouvé yi. ak loolu loolu mooy nature bi. loolu kenn mënu ko yóbbu assemblée nationale pour loi rectificative kooku mënul am. c'est pas possible. léegi comme ASF ak ay mais kenn mënul leen jël ak oto yi di leen yóbbu assemblée nationale naa leen loi rectificative kooku mënul am. Mimi Touré li mu wax dafa leer nee na soo leen boole ñoom yëpp soo leen boole loolu lépp. nature bi ak numéraire ça fait 200 milliards loolu la mimitura wax mimitura waxul argent liquide liquide 200 milliards loolu amul li ñu jotoon 5 milliards euh, depuis où ça fait 37 milliards yooyu yóbbu nañ ko euh, loi rectificative xaalis bu ñu fa jëlee yóbbu nañ ko loi rectificative. mais kenn mënul jël ay kër ay oto di ko yóbbu loi rectificative. d' accord d' accord d' accord mon très cher merci beaucoup merci beaucoup. waaw je parlais euh, foog nga may ma parce que hmm. ñoom foog naa ne laal nañ leen ils sont éventrés ndax kaaju nañ ñu ngi woote rek euh, donc mu am reprise AHS AHS société bi boo bourger moom li mu wax ak li agent judiciaire de l' état wax nii la hmm. opposé ñu ne euh, complexe immobilier Eden Rock pour 4 milliards Quel est ko euh, matul woon loolu agi AGE mu ne dette de Abbas Jaber de la de la Sunewo Sonacos dama xamul lu mu euh, Karim Wade ñu compte bancaire de Karim Wade à Monaco 8 milliards boobu nag laa bëgg xaalis boo teg loxo doo ko indi loolu laa leen wax ni xanaa da ngeen ko luubal la laa leen di laaj ndax yeen lii ngeen di wax bu fekkee am na. Mm. yéen a ko bind Mimi Touré bind ko détaillé ko bu fekkee am na léegi nañ leen may ni d'accord da ngeen am patrimoine ndax dugal ci ay montage ak ay ay euh, restructuration euh, projet euh, dugal ko ci trac xam nga utum ndam mais 8 milliards yooyu nee ngeen jël ko indi ko loi de mhm. finances, mu ne 2 mhm. deux milliards dont une maison estimée 3 milliards dont une maison estimée à 2 milliards Maniko, ani un milliard bi def war na loi de finance ndax moins De, sama dom ba ca keur ga sax ni euh, euh, un Aïda répondre na ci 47 milliards arrêt cassation. euh ñu passé ci deuxième dem ci deuxième point non waxu dialogue bi ci waxu dialogue bi lay nuyu excellent jam ci waxtan bi ci un reste à être euh, payé. loxo ñu yow rek voilà dama bëggoon pas suivre émission bi parce que waaw dama doon seetaan émission bi sànq ba léegi mais dafa dafa fekk ne. Mhm. depuis euh, ba léegi 2012 ba léegi. Mhm. ñu gis ne ñun citoyens yi nga xamante ne maa ngi tudd guddi maa ngi wootee Guédiawaye commerçant mais dama gis ne depuis 2012 ba léegi dañoo dugal réew mi ci benn affaire boo xamante ni ay tamante ay waxante ay affaire te li ñuy wax. boobu ba léegi dañ cee gisul dara loo xamante ni tey citoyens yi nga xamante ni ñu ci suuf teg nañ ci seen loxo wala ñu gis ko lu dul ay wax yoo xamante ni sànni bal kii sànni kee sànni loo xam ne amul benn intérêt mu ngi ñoo yóbbu fenn liggéey réew mi moo gën wax yi ak naan ki sàcc na ki te li ñuy sàcc doo ko gis doo ko dégg am na loo xam ne tamit c'est très facile tam nit ak naan dafa jël dafa yomb dafa yomb te depuis 2012 ba léegi ci loolu rek lañ nekk naan ñu milliard bi 1 milliard bi deux Donc, euh, je vais terminer juste euh, pour demander à mon frère Djaraf, euh, euh, collectif avocat Karim, bien créé, Amadou Sall, bien convoqué Karim, euh, à Paris. Amadou Sall la ñu wax mu constituer le pool des avocats euh boo buggee ma lim leen ña nekk ca baro Paris ñom maître Olivier Sow sur maître Fartois bi défendre défendroon wa may ma ma yeggal yi xam nga ñun dañu féké mhm. Amadou Sall la ñu wax en 2012 ba ñu nee dañ koy euh, convoqué dañ ko cay bolé déglu mom mo dem da nga juum depuis le début Amadou Sall dañ ko cee bolé du lenn ci dossier moom moo dem du lenn ci dossier Karim tous les avocats du pool du collectif de Karim sur sur journaliste France euh, euh, euh, Fartouat ah, Olivier Sur Paris Dakar maître Seydou Diagne maître Clédo Cirelli maître Demba Siré qui depuis le début d'ailleurs dans le truc Demba Siré Batili, maître Amadou Souleymane Ndéné Ndiaye mi constitué wu ñoo doon collectifu avocat Karim c'est-à-dire ñun lu ñuy wax dañu fekkee dañ ko xam turam musuma ko gis man mu sol robe. parce que je suis pas inscrit au barreau. moi je ah. suis maître. waaw mais yow ñun musuñu la gis ba ñuy liggéey sax euh, waaw ba ñuy liggéey sax ñun. j'ai été très ah, clair di waxtaan ak avocat yi xam dossier bi moom gisuñu ko. je vous donne un exemple. léegi euh, pour terminer après vous répondez. bu la wane ko la télévision. ben ngi nii. léegi kii kii kan lii bañ koy def demagul sax xol ce n'était même pas complet bañ koy liggéey euh, mën naa terminer avocat yi ngay wax boobu giseguñ sax kayit bi lii ñu ñoo ko liggéey ba mu jekk jox ko avocat yi luñ ci teg baax na mhm. sa avocat yooyu ngay wax waaw léegi moom xam nga man na tontu waxu naxa sakandang mhm. parce que man dem naa gànnaar xaw ma am naa am naa xaw ma lan gëléem ma nga gànnaar te mu leer ni ah, gisuñu ko fekkee wuñ ko taxaw ci télé di wax lu la lu la neex di génn kayit ñëpp mën nañ ko mais loolu du jëriñ sénégalais ndax nag jaaxle ngeen ba ku nekk di woote euh, ma bëgg wax pour terminer <laughs> euh, pour euh, pour terminer donc pare ci ci waxu CREI bi da nga ni lu tax dialogue ñun demuñu dialogue parce que tout simplement ñun lañu wax lu leer dañ fi dem élection ñu ànd nangu dem dialogue à l'époque

dañu ni ñun bëggatuñu élection boo xamante ni euh, ministre de l'intérieur bi day nekk koo xam ne ci APR la bokk wala wala ñu créer euh, benn ministre chargé des élections ni Abdou Diouf defee woon ni ko Ablaye Wade defee woon ba muy décharger Ousmane Gom en 23 juillet. Mmh. ñu ne également nañ dem ci audit du fichier te ma bëggoon juste euh, avant de terminer audit fichier bi xam lan mo ci nekk wo partenaires yi ñun ñep ñu tok ñu mëna xam parce que jusqu'à aujourd'hui ñun amuñu fichier bi xamuñu lu ci nekk on est allé voter sans savoir lan mo nekk ci fichier bi ma juste lancer un mot à l'endroit de Maymouna Bousso kéro ñoo waron débat ci ci lii euh, li liko dal dal ko débat bi massaou am makoy massaw waxuma ci côté juridique wala dara mais liko dal metti na. donc euh, tey ji bu ma fi toogee foog ma tudd ko. mettre un peu par rapport ak euh, ñu avancer tuuti ci mbir mi rek euh, dialogue bi ñu bari jàpp que ci genn wàll opposition bi peut-être raté nañu ben cadre d'expression tribune bo xamanteni ni mënoon fi régler déjà problème yu jot soulever ndax élection yi ñu génn ay la yéwén ñu bari bari jàpp nañu bari won ay dysfonctionnement bari woon ay manquement yo xamanteni war nañu bala ñuy dem ci benen élection ñu lijjanti loolu le effectivement Mansour. Euh, dialogue est déjà lu baax la. Mhm. comme ni ko sama frère waxee président Macky Sall yàgg un dialogue c'est un homme de dialogue. Mhm. ce n'est pas pour rien mu créer le prix Macky pour le dialogue en Afrique. nitu jàmm la te saa su ne da koy wane. xam nga luy problème fondamental bi c'est que dañoo une opposition boo xamante ni opposition bi gën a républicain ci histoire politique administrative du Sénégal. non. xam nga laa preuve. moom wax na ko léegi. jëkk nañu créer Manko Wattu Sénégal bu ñuy xeex ñu xeex boobu yow xam nga ci dara pour jotuñu récépissé parti ñu nekk ñu dem Manko. yaa ngi woon ci biir. ñu ngi woon ci biir. Mhm. ba Macky ba ñu ba bindee ñun ñoo bind. ñun ñoo bind lettre pour rencontrer le président de la république mu accordé ko en moins de moins de deux jours mu bind taf taf répondre opposition ne je vais vous recevoir premier problème ba ñuy dem dañoo roccee ko en catimini. première xeex bi ñuy dóorante ay kurpañ maa ngi ko wat Sénégal ci biir Saalum grand parti ñeent dem def lu leen neex juboo amu ci manko boobu nga gis gis nga nuñ mujjee tasaaroo saa ñu mënut juboo seen biir wax na ko sànq correct fii incorrect fii ñu mënul juboo seen biir mënuñoo ànd ak pouvoir beneen bi am na lu may reproché pouvoir certes donc donte nag ñu ngi bokk ci mouvance bi comme je di dafa am loo xam ne traditionnellement bu fekkente ni résultat ba mu war a joxe peut-être des na dafay baax peut-être ñu xool yeneen yoon foofu peut-être laa leen jox raison ñoom parce que nag je le dis toujours nous n'avons pas le monopole de la vérité parfois opposition bi dafay wax dëgg léeg-léeg ma défendre leen ñu ne eh kii fu mu far léeg-léeg ñi def ñu. non non daf dama ne. Mm-hmm. Mansour xam na li may wax parce que il me suit. Mm-hmm. man dëgg rek laay défendre lu ma défendre lu dëgg. yaa ngi dégg barki démb rek dégg nga ba ma taxawee marché bu bees dama ànd ak libéraux yi ñu ne lu tax muy défendre waa marché bu bees te géejawaay laa bokk géejawaay laa waroon défendre dëgg laa gëm yaa ngi dégg bi ñu mujjee woote waxtaan dama ne traditionnellement dañuy créer ñetti pôle ñu ne pôle mouvance présidentielle pôle opposition pôle non aligné biaisé ñan la ñuy woowee déjà ñan la ñuy pôle non aligné suñu suma père da cee fay on était ensemble en Manko wat Sénégal donc c'est un opposant il vient ici pour être non aligné moo leen dirigé c'est bien beneen bi mooy lan bu ñu on avait convoqué 194 partis partis ngor cent jaarama cinq partis ñoo ñëw présent kenn ku ci nekk ñëwal mbooloo bi nga xam ne ñoo la délégué pour nga ñëw mais parti bu ci ne am na xalaat li ma jàpp man mooy munuñu dajeel dajale nit ñi à ngor jaaraama bu ñu paree ñu ne daje dajal leen dajaloo leen ci ay pôle alors pool boobu bu ñu nee pôle par exemple mouvance présidentielle c'est cinq dix quinze personnes ñooy daje mooy ña daan daje traditionnellement tey jii ña nga xam ne par exemple ñoo dem ci turu mouvance présidentielle li wéete woon man yóbbu luñ ma sama xalaatu parti parce que seen gis-gis mën naa wute boolta am na ci point yu bëri yoo xam ne wute nañu ak suma gis-gisu parti foofu moom dama leen di dama leen ànd ak yéen ci côté boobu mais fi ma dul ànd ak yéen mooy bu ñu wootee da ngeen ni ñëw wuyu ci penc ma bu ngeen ñëwee toog li leen naqari ngeen wax ko d'accord bu ñu wootee da ngeen wuyu eh, li leen naqari ngeen wax ko yéen ba ñu wootee da ngeen a dem wuyu li leen naqari ngeen becc ko fa mais fa mu mujj moo jaaxal euh, sénégalais xam nga euh, dañuy rappelé mhm. bi fi président Macky Sall woote en mai en mai 2016 je pense dialogue pour ñu demuñu woon xamoon nañ ne dialogue boobu du mujj fen et la preuve en 2017 mai 2017 dañ institué une journée dialogue national qui continue au parce qu'il mhm. n'y a pas eu l'évaluation de la première journée. ce c'est pas un dialogue politique. c'est une concertation technique sur le processus électoral. à chaque veille d'élection dafay am. Mhm. donc nous, nous, jógee ces élection gis li bi si am impréparation manque d'organisation bi si am si ñu ne nañ leen toog ñu rectifier loolu ñu ne luñ dem c'est ça qui a présidé ñu suñu participation mm. et d'abord c'était une participation individuelle c'est-à-dire chaque parti a dem jël ses responsabilités comme nous respectons respecté aussi seen choix parce que c'est ça aussi la vérité mm. ñoom dañu am seen choix am seen ligne de conduite dañ koy respecté comme nous, nañu nañu jël suñu responsabilité dem bokk si dialogue bi dem bi euh, dem euh, Mohamed Bal, ma rek ma jël mbokku téléspectateur bi nek ci ligne bi peut-être mu doon kuy mujj sax ku ñu jël bala egsi la jàmm ci waxtan bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah dégg nga li ñuy waxtaanee. baax na ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah man de li ma gën a jaaxal xam nga mooy lan sëñ bi. mooy lan. ñun dañoo nekk géej waaye xam ñu ngi tikki nag mais li ñu jaaxal dëgg dëgg dëgg mooy li ñuy wax jël nañ ko ak tamit te mu leer ñëpp ne dërëm génnut ñu bëgg ñoo tey ci xiif ak mar ak ñu ñooñu di défendre suñu waaye Mimi Touré sax vraiment war na noo xoolaat si mbokk si si fi mu toog. ay nit di toog nga yilif leen nekk président nekk justice nekk lépp mel nañ leer ko ne lim ñu def du te kenn ñëpp xam nañ ne maanaam am jëlul dërëm Amadou Touré nanguwul président assemblée nationale nanguwut ñooñu toog foofu tey su may di nangu ak ki doon défendre bërki démb Karim su matul deux ans nga taxaw encore fare fële xam nga nanu nekk nit nit na nekk gor nekk fi mu nekk jàpp fa te xam ne yàlla rek a yor jaam wasalaam man loolu rek laa ci wax. donc je poursuis. dialogue bi donc ñun. cadre discussion yi. ñu ne donc failles yi ñu recensé woon yëpp nañ la waxtaan te bi ñu dem ku si nekk yaa demal sa bopp. bi ñu dem ba topp foofu ñu gisee ñu toog ministre de l'intérieur ubbi waxtaan bi def lu muy def wax point yi nga xam ne que war nañ si waxtaan. parti yi bëri woon fi ñu ne nañu regroupé wu en pôle. parti yi fa nekkoon ñoo jël souverainement dem toog waxtaan constituer seen pôle pour dem egg si eggali si si si concertation bi dem et ça bien dem on aussi du ñu mën a am yenn assur ak ñu fi am. parce que aussi il faut reconnaître que tey ñun et puis pas le ministre de l'Intérieur, intérieur moo présider le le moo war a moo daan présider concertation yi. Ah politique bi c' la Sénat moo ko doon def. C'est ben, si on parle de dialogue électoral, c'est pas un dialogue politique. C'est un dialogue politique. Mais non, <laughs> ah. parce que le Non, non, mais je sais ce que je dis. Non, vous savez pas, c'est très bien ce je vous savez suis un acteur politique, vous, très bien mais vous, ne savez pas. Présentement, présentement. Présentement, thème politique mais présentement, parce que Présentement, <laughs> thème de France, ministère de l'unité cadre de concertation sur le processus électoral loolu tudd ubbi leen document yëpp te joxe lolou mo fa ne bi wo Ngor lañ cadre de concertation sur le processus électoral point yi c'est la refonte du fichier c'est l'audit du fichier c'est les élections à venir Le politique dialogue politique ça va au-delà des acteurs politiques dialogue politique aspect économique bàyyi ma aspect social les points les points les points les points euh, wax nga ma je vous ai religieusement écouté. donc point yi wax point yi nous wax le ñun suñu premier combat moo puisque Sénat moo doon il gis nañ lu mu def ci élection législative ñun dañuy récuser Sénat. Mm-hmm. motax ñun ñu né Sénat dootu présider discussion yi nañu une personnalité neutre. Mm-hmm. mu mu présider discussion. et vous avez eu gain de cause. nous avons eu gain de cause sur la bu ñu fa demee Sénat mm-hmm. mo def ñu ko neex. donc ça ça justifie la pertinence de notre participation deuxièmement li indi problème bi fu mu nekk parce y' a y' a trois points C'est la caution c'est le bulletin unique c'est euh, le parrainage. Mm-hmm. le parrainage fin ñu ils ont proposé 0,75% des inscrits tout candidat dans nga parti wala nga bañ parti L'autre pour une mise en berne des actes démocratiques ba parce que aussi c'est ça la c'est ça la démocratie qui peut man na nek président candidat président de la war loi bi may mais est-ce qu'en d'autres rek d'autres termes permettre ñu régler définitivement problème bi bi ñu ci élection législative rationalisation des partis politiques C'est la bokk ensuite ñu ne connaissance parrainage bi pourquoi on n'est pas d'accord tay nañu yam ci statu cest li am n'est ko def ne un euh, une candidature indépendante na nga am 000 signatures réparties euh, euh, si dix régions Sénégal képp ku koo xam ne parti politique moo la tax nga nekk moo tax moo la parrainé sa candidature vous n'avez pas besoin de de de vous n'avez pas besoin de parrainage de signature loolu deuxièmement ñu la caution il faut que nous xool ko à la baisse et sur ce point là. je pense que mm-hmm. tous tous les partis prenants sont d'accord. Mm-hmm. maintenant ñu ne caution plus mu plus les financements occultes du yok si rew mi mën cee dugg mën si dugg loolu tax ñu leen caution bi nañ ko xoolaat à la baisse pour que pour ñu benen bi benen bi c'est le bulletin unique mais tout le monde sait que le bulletin unique mhm. mais c'est des gains boo defee le bulletin tous les candidats nekk si benn si benn liste mhm. loolu ay gains la ay ay ay ay ay fonds la yoo xam ne ko ensuite je termine sur sur sur sur les points toujours mhm. ñu ne puisque y a une disposition constitutionnelle bu né nañu régler le problème du statut de l'opposition et de son chef actuellement au Sénégal tout le monde sait qui est le chef de l'opposition disposition constitutionnelle référendum bu le passe moo ko nañ ko appliquer mais on dit on va pas l'appliquer dañuy bàyyi ba 2019 bàyyi ba bàyyi ba etc donc tay tay tay la question aussi. non mais la question elle est non xam nga man. xam man chef de l'opposition kan la xam man man man. ci lan mooy balance bi kan mooy chef de l'opposition. il a dit il a dit xam man. kan la c'est le donc vous acceptez ce qui vous est dit aujourd'hui au niveau du correct. attendez vous acceptez que dialogue bi. attendez attendez ah, attendez moom la la wax may leen je vous en prie nous restons moins de cinq minutes s'il vous plaît. attendez que je termine dama tout le monde sait que dañ ne opposition la coalition ou le parti en en deuxième au ëppale voix ou bu ëppale doomu député donc c'est le PDS non c'est pas le PDS c'est la coalition Boudem. c'est la coalition c'est la coalition mm-hmm. maintenant il faut pas y a pas de problème là-dessus hein mm-hmm. nous n'avons pas de problème là-dessus mm-hmm. bien sûr quel est le problème nous n'avons pas de problème là-dessus ensuite man man je vais pas entrer dans ce débat de caniveau là excusez-moi le hein. man sur les points sur les points de discussion sur les points de discussion nous sommes en train de marquer notre pas mon pour tout leen déglu dañuy dem pour teg suñu fa maintenant. Mm-hmm. il n'y a pas de rupture. et vous avez et vous aviez déjà annoncé les couleurs. il n'y a pas de rupture il nous reste moins de 5 minutes. je termine par ça il n'y a pas de rupture. Mm-hmm. dañ ne point de point euh, point de discorde dañu am. Mm-hmm. du ñu empêché ñu continuer discours mais ñun dañ ne balaa ñuy dem feneen. Mhm. balaa yeneen point yi dem il faut bii ñu régler ko. ko problème pare. mu mel ni maa ngi lay nuyuwaat vraiment ci invitation bi ñu defoon di nuyuwaat sama gars yi di jégalu aussi. <laughs> su fekkee dañ fi wax loo xam ne quand même euh, dafa nekk euh, lu ñu warul woon wax ñu ngi ciy jégalu. Mhm. day leeralaat encore une fois surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo woote woon sànq. ma leen di yëgal na leen euh, loi de finance maanaam xaalis boobu ñuy laaj su ñu jaayee immeuble Eden dinañ ko gis ci loi de finance jour bu AIBD commencé di produire di créer ay dividendes dinañu gis impactam ci budget et cetera et cetera et cetera du ma si yàgg beneen bi mu mujj mooy.

nguur gi d' accord na waxtaan ak ñoom ci wàllu fichier électoral waxtaan ak ñoom ci wàllu élection ni ñu ko war a demee et cetera. am beneen parti bu taxaw ne am na beneen parti comme ni mu ko waxee. am keneen ku wax ne Alaxam Njaay ne ñoom du ñu débat tant waxuñu. ci wàllu fichier électoral wàllu layee loolu muy contradiction bu leer boo xam ne ñëpp gis nañ ko Sénégal nag mu ngi leen di déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo leer na parce que kenn moo am na ku ne ku ne ñoom du ñu débat tant waxuñu ci waxu fichier parce que ñoom gisuñu fichier keneen keneen ki ne ñoom dañ leen woo pour waxtaan ci fichier donc loolu muy wane ne carrément dafa am volonté manifeste de ne pas dialoguer et ça c'est regrettable vraiment

ne Macky Sall mënoo ñu delloo ndax dañu am ay acquis démocratique Abdou Diouf def ko Ablaye Wade def ko yow amo droit delloo ñu temps ay 1981 yo xamanteni ni kenn du xam fichier électoral encre indélébile du am. Mhm. c'est-à-dire acquis démocratique yoyu ñun lañu bëggul buggul euh, dellu ginnaaw mais point yi mu wax ils sont pertinent mais ñun ñoo dialogué wul ak ñii tant que li ñu wax amul euh, may wax nag rationalisation boobu boo leen ko waxee am na ñuy toog ci plateau yi bu teyee ñu nekk opposition da ngay rey parti yu mel ni ñu jaraas bi nga xam ne ñoom kese la yaa ngi leen di gaañ yéen am ñaari nit amuñu ma jigéen vraiment euh, yow daal dama lay bàyyi noonu rek quoi <laughs> voilà donc xam nga ñun parti bu mel na ñun parti buy door juddu la. Mhm. mais parti de cadre la. xam nga Sénégal jàpp nañ ne da ngay woote fële téeméeri nit ñor ay pancarte ñun gëmuñu loolu xam nga lu ñu gëm nit yu am xel di xalaat di def ay propositions yoo xamante ni dafay contribuer au développement du pays ci lañ nekk. bis bu jotee nag mu ñor ñu war a nekk candidat incha allah sénégalais ñu dégg te li ñu gëm mooy bis danañoo ñu jiite réew mi eh, beneen bi nag mooy nit dangay ngay gëm boppam xam nga sénégal ku ko jiite ki gëm ni mën na koo jiite ki ci génne boppam mënu koo jiite te du ko mas a jiite mm-hmm. loolu laa bëgg ngeen gëm mooy euh, dama lay remercier Mansour mm-hmm. bu baax a baax pour invitation bi mm-hmm. di leen xamal ne ni sénégal dafa changé sénégalu Marto Talla Sylla amatu fi sénégalu Valis Alex Sagora amatu fi sénégalu toj las 24 heures chrono amatu fi

Euh, di voir que nous espérons que les gens fi wax surtout que euh, en tout cas par rapport au dialogue toujours. nous pensons que il dafa faire dafa jot. sur toutes les questions qui intéressent la nation. surtout que erreur yi amoon nous pour que nous mën ces élections paisibles. paisible. Mhm. parce que l'élection est une élection électorale y a mais pour cela il faut nous toog waxtaan sur ces questions là que que nit ñi amee amee amee amee point de convergence yoo xamné mmh. nañ permettre que dëkk bi am donc des places de convergence. merci à mes frères. <laughs> Euh, ce fait un plaisir euh, débattre avec ñoom. Mansour merci de l'invitation. merci beaucoup euh, j'espère que sénégalais yi am nañ nañ ci njëriñ merci beaucoup. voilà merci beaucoup merci à mes frères. voilà lolu la ñuy won nak euh andil leen fii waxtaan woo xamante ni peut-être boo leen ko teewloo di ngeen ci eh, jële njariñ sénégal yi loo xamante ni dafa lëndëmoon seen xel yi rawatina nag ci coowal deux cent milliards yi yaakaar naa ni peut-être nit ñi am nañ ci loo xamante ay éclairage yoo xamante ni bu nu toogee seen xel dina mën a dal que ni peut-être seen xaalis boobu la mi ngi ci loxo yu yu leeraleen ñu amoon nak nag la ci plateau bi Pape Malick Ndour du président du conseil départemental bu Guinguinéo ba paré di responsable politique bu alliance pour la république du partum njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall merci beaucoup à vous monsieur Ndour d'avoir fait le déplacement. Nafi yow tamit dañ lay jaajëfal comme euh, ci disponibilité sa su nek rek Nafi Diallo la moom membre comité directeur parti démocratique du du Sénégal la merci beaucoup Sénégalais autant pour moi euh, voilà ci la bokk merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci infiniment, Monsour. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, Samadon maître Diarapso, du secrétaire général alliance démocratique pour une Afrique émergente loolu moom soxla nañ ko jëw leen bokk ci coalition benn bokk yaakaar bi jàppal njiitu réew mi son président Macky Sall merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous aussi Mamadou Faye directeur des élections bu LDR Yeesal ba pare bokk ci kuréel gi ñu duppe correct nag te ñu wuyu woon euh, ñi nga xamante ni moom mooy l'ambassadeur Seydou Nourou Ba merci beaucoup d'avoir pris le déplacement merci Mansour merci ak yaa ñi nga xam ñoom lañ bokkal plateau merci à vous aussi fidèles chers téléspectateurs la amone yene yéene len ko tay may def mention spéciale équipe technique bi nga xam ne ñooy ci coordination préparation émission bi di len jox dig dajé alors bi dégmal avec toujours le même plaisir.